xam ni dañoo mobiliser wu gis naa ni maire yëpp par quasiment ñu ñëw mobiliser wu ci jataay bi nga xam ni moo ñu fi indi tey nuyu population yi yëpp ñu fi teew di rafetlu jataay bi yàlla def na ñëw nañu fii ci euh, commune bu Daaru Salaam pour lancer lu nga xam ni dund gi nga xam ni président Macky Sall moo ko joxe di ko lancer fii nag pour toute la région de Diourbel mu nekk choix bu am solo choix boo xam ni gouverneur li lañ ci waxtaanal mu digal na digal digal nit ci ñëw fi di wax ni Diourbel région de Diourbel dafa nekk ci ñetti région yi gën a mag yoo xam ni ñoo ëpp lu ñuy jot dund gi rawatina nag euh, la commune de Touba commune Touba mooy ëpp ci Sénégal ci commune bi nga xam ni doy jot wàllu dund gi commune Touba moo ci ëpp plus de trente sept mille ménage dont lu ci ëpp maanaam ci RNU bi la jóge mais loolu du ko lu tax mu ma koy wax parce que xam naa ni stabilisation RNU bi dafa métti parce que ku ci nekk nga xool ko ndax fii la dëkk ndax amul ay doublon lu ñuy wax doublon mooy ay ñaar ñett juróom fukk ñu nekk ci biir benn kër wala ñu bind sa tur ñett yoon ñaar yoon et cetera ñu saytu ko benn par benn ba raxas ko tame ko ba mu set wecc loolu bu ñu demee ba am résultat bi dañ koy gërëmee ñu ko ñu ñu ñu ci taxawoon. te damay wax ni les élus ñoo xam ni députés yi la wala au conseil des collectivités territoriale wala euh, les conseils économie sociale environnemental laxasu si ànd ak les maires ànd ak les délégués de quartier ànd ak les chef de village xool liste bi ni fii tey fii kenn du fi bindu ñaari yoon wala ñetti yoon fii du ñu nangu ay transfert de non nekkoon dëkk bële dëkkoo fi wala dëkk fële ca ndar ñu bindu la Touba loolu ñu bañ ko mu joxee leen résultat bu am solo loolu nag dama leen koy santé bu baax si taxawaay boobu parce que lii mooy liggéey boo xam ni muy liggéey bi jox leen confiance jox ay termes de référence gouverneur di leen nii lañ koy jaaralee ku ci nekk jox xar sa sa tànk tugay doxal ko noo ko war a doxee ba am résultat bi ñoon da leen koy santé bu baax te kenn joxuñu ci kenn ñadrëm ku si nekk moo doon demal boppam di jël ñaqam di jël alalam di ci def loolu rek pour intérêt population parce que intérêt population moo ñu tax a jóg intérêt population moo tax a jóg le président de la république parce que li population bi moo ko moom boo jëlee dund bu toll nii bu mosul am ci àdduna bi lu ma leer mooy bu ñoon doon seet ci àdduna bi wax naa ko keroog amul dëkk bu joxe lu toll nii non seulement ci dimbal waaye ci volume maanaam ci nu mu nu mu eggee ci askan bi amul en tout cas man xamuma ko donc bu ñu amee lu mel nii ni ñuy jóg volontaire fexe ba tànneef bi jaar yoon teg fu mu war a tegu te coow amu ci loolu nañ leen ko sante bu baax a baax amul benn maire boo xam ne daf man waa man politicien la wala man sama parti lay waxal amul kenn ku ci toog waxal parti am amul kenn ku ci toog waxal formation politique am lii dafa ni man askan bee ko moom citoyen bi moo ko moom président moo ko jël jox ko citoyen bi donc nañ ko jox nuñ ko war a jox donc nañ ko tànnee nuñ ko war a tànnee teg ko ci yoon mu yegg fu mu war a yegg loolu nag dañ koy remercier ñi nga xam ni vraiment am nañu taxawaay responsable ba nga xam ni loolu tax na ba ñu am résultat bi ñu am di lañ koy gërëm bu baax di leen sant di remercier l'ensemble des maire ñu nga xam ñu impliqué wu mais aussi ak l'administration territoriale ceeb bi lo ceeb bi yaakaar naa ni pratiquement mën na lu ci des fi leeg ñaari fan ñetti fan dana egsi fu mu egsi gouverneurs yi préfet yi commencé koy tas ci communes yi bu leen neexee sax tey mën nañoo commencé tas ceeb bi parce que état bi lépp lu doon ci ay moyens financiers génneen na ko jox ko ñu ko war a jox pour que ñu liggéey tey jii bu la neexee ñu commencé ko tas tas ko ci écoles yi tas ko ci communes yi les nombre de points de distribution ñoom ñoo xool ñaata la ñu taf ko ci tas ko ci de telle sorte que askan bi commencé jot lii nga xam ni moom la leen président jagleel.